waaw lu ma la ci wax sa simple jaw jaw xam naa booy dox ponkal féetale ca kanam sa xel day dal hmm? ndax luy jógee ci kanam du egsi waaw léegi nag raw gu xam ne dafa jéggi ponkal moom moom jaw bu la nit ne diw de xaw ma lan la waaye looy xëccoog moom moo koy jot loo xëccoog moom rek ci moom lay dem lépp lu mu yaakaar moom wóor na la la ciy jot te loo ko jéemal mu dellu ci sa kaw da nga koy dégg da nga dégg ñu ne diw wërsëg bi daa tàng comme comme comme nangam nga dégg ñu la diw de pourtant xoolal li ma jaaxal loo ko yéene rek automatiquement daf lay dal parce que rawaanam daf koo féete kanam ba lu ko nit sànni da koy jël delloo. Ah, que. dañ yàlla daf ko bind pour yow sa entourage bi la bi maanaam pour mu mën laa gën a jàppale jege la mooy sa takkandeer bi neenaa naa la boo nee bërit mu ni bërit waaye léegi naka nga mën a def ba sa rawxaan féete la gannaaw it sarax hmm. nee naa la tey sama numéro téléphone boo ci juumee jot keneen sarax boo juum keneen la jëm keneen boo te nee naa la sarax a mën a fekk jinne mu tëdd nelaw nga génne ko léegi def sarax bi jinne bi ñëw wuy si la te yaa ko woo léegi bu ñëwee dal sa kaw te doo xam lan la bëri na ñoo xam ne génn sarax moo leen um bëri na ñoo xam ne sangoo gàllaaj bu ñu war a sangoo moo leen um bëri na ci ñoo xam ne tey laajteel ki la dàq ki la dàq génne léegi sarax bu demee ba boo ko génnee tey suba nga xëy doo amaat loo ko génne kon sarax ba jigu la lan mooy sarax mu ngi mel ni tey oto boo xam ne dañ koo taal dañ koo taal ba pare oto baa ngi point mort taxaw di ralentir boo defee sarax mu dugal première ah. nga génnewaat sarax mu dugal deuxième ah. nga génnewaat léegi nag dafay ba day dugal vitesse yépp loolu sarax daf koy mun waaye nag sarax it ba tey dina def nit point mort fi nga taxaw doo fa jóg. parce que baaraam yi ni ñu wutee la nit ñi wutee tey jinne bu ci nekk saraxam bokkut ak saraxu meneen ma demal wër ña yoon jinne laa la wax ku ci nekk da lay wax sarax bi ngay génne ki ku ci nekk da nga naan la li ngay génne léegi ku ci nekk ci loolu da nga xam ni kon morom ma ak mais bokkul kon sarax dafa nekk lu danger ci sarax fan féete la kanam sarax daf koy def pour na nga dàq sa rawxaan ba mu féetale ginnaaw it sarax daf koy def am na ci ñoo xam ni sarax ba ñu génnee ginnaaw yàlla moo tax seen rab di leen gën di sonal ndax nee naa la jaw rawxaan bu la féete kanam boo dajale woon jinn yi ci senegal benn rawxaan bu ko tegee loxo rek jinn bi day lakk kon bokkuñu est-ce que dégg nga kon dit ñi nañu delluwaat ci xel man xam lu may d'accord hmm. sarax lu baax la hmm. waaye billaahi bari na lool kooku naa la ci defal émission spéciale ah, sarax yi baax ak yi baaxul xam nga tey jaw dafa am sarax yoo xam ne boo ko defee rek yaa xëcc sa bopp ci coow coow si dafa am sarax yoo xam ne boo ko defee it yaa sa bopp ci toog benn place dootoo mën a bouger exemple dafa am sarax yoo xam ne boo ko defee ci yaram bu tàyyal ngay dëkk laajte nit a naan la ba ma génnee sarax sama xol dafa gën a naqari wala fa ma toog du ma fu mënatuma faa jug damaa gën a tàyyal lu tax parce sarax baa ko dëj exemple bi ma lay jox jaw uh-huh. cin lu muy def hmm. day togg waaw kon saraxu cin uh-huh. te boo toogee ba pare fa lay def ci ci taal ba lay toog ah kon saraxu cin uh-huh. da ko war a xoolaat loo xam ni départ ba dafa sedd hmm. tàng hmm. ñu yàq ko boole ñaar yu bokkul kon da ko war a xoolaat beneen émission la ko léegi c'est simple tey booy dox bu dara nekkee sa kanam nooy def bu maanaam te gisoo ko dalay faqastal lan la faqastal gisoo ko pourtant nee nit li koy faqastal du ko gis waaw day fekk rawaanam féete bu ko bu ko féetee kanam la koy faqastal koy da koy moytuloo ah, waaw nit sa rawaan féete na kanam nga nar dem tey mu wóor la ni oto bi dafa nar a def accident doo yeewu doo xam li lay li la nelaw loola la sa rawaan féete na la kanam nit di la wër pour def la musiba bis boobu du la gis foo mu dem ñun ko fii la jaar léegi parce que toujours danger bi ñëw rek da koy da koy pousse do accès sa rawaan nag léegi mu ngi ci sa gannaaw xoolal tey mel ni tey silmaxa boo bàyyi muy dox lu ko lu ko romb rek mën na koo def musiba te du ko yëg silmaxa buy dox lañ lañ dax gàddal yet ba boo bàyyiwul yet bi nii lay def parce que xamul fan lay teg tànkam xamul fi muy teg loo xamul fan la war a mën a jaar fu mu mën a jaar waa ki sa roxaan fii te gannaaw nag noonu ngay def li mm-hmm. lay faqastal day yomb mm-hmm. jaw xoolal tey bu ñu defoon fii liggéeyu jàmbur yaa ñëw joggil ko sa bopp te doo ko yëg <laughs> tey nga dem di lijjanti ju dara eh? jarul dem ndax heure bañ la wax sax heure boobu dalay fekk ngay neloo dégg wax bi ah, way ilaa it tey lu la war a def njëriñ da ngay bàyyi ba bis bu heure ba passé ngay door a dem ñëw ñun la léegi la fi jóge parce que lépp luy sa avantage du ko def toujours da ngay resté derrière. jaajëf. gars yi nag euh, nee naa man man xaalis léegi moom maa ngi nii maa ngi yéen a ah. euh, yi ñoo yóbbante. dañoo bëgg chaque ah. nga may benn live si YouTube bi. ndeysaan gars boo xam ne ci YouTube bi koy def acca accordé accordé xam nga gars yi gisuñu li xaas di recevoir xanaa ñëw waaw guddi amul problème accordé naa leen ko accordé nag dégg la jo jo jo mos mos nga waa dëkk micro te réew ma. bokkul de. diir xoola ku xam xaas. jo jo nit ba jo ma nit jàmm la. kan. Ah, ah téléphone bi gars yi ñu <laughs> Sénégal eh, Sénégal yal na yàlla defal ñëpp jàmm te yàlla defal leen jàmm defal ñu ko barke